ndax virus bi bu amee fokk nag ñoom ñu am ci ay kàddu yu sànni pour lan dalal nit ñi wax leen lakk la def ba mën cee mucc gannaaw bu gannaaw yàlla subhaanahu wa taala at na yàlla mooy musal nit ñi waaye fokk ñu def ñu jël ay euh, préparation yoo xam ne danañu mën a aar ba nga xam ne dëgg-dëgg virus bu ñëwee mën nañoo bañ a sonal léegi nag président dégg naa mu wax ci léegi ay wax bàyyi ay manifestation yi war a am ci Sénégal yëpp ci lépp rek ba bépp manifestation war a am rek aaye na ko ndax loolu islam wax na ko wala waxu ko waaw dama ne wax na ko sax gaa ndax yonent Yàlla sallallahu wax na ne bu jafe-jafe amee ci ay réew ci am réew mu ne nañ tëj frontières yi bu lu mel ni amee ay mbas yu mel noonu dañ tëj frontières yi ba waa réew mi du dem ci réew mi waa réew mi du dem ci réew mële ngir lan ngir faggul nit ñi fam da fam fam nekk fa feer bi nekk mu bañ walla wàll wala beneen réew léeg-léeg dañu wax koo pare am keneen ku yolleeku génn réew ma dem ci beneen réew fekk mu ngi ko amee su demee wàllu ko réew ma yëpp lor leen moo tax yun sam doon wax ci addis ba mu ne al fitnatu naimatun lahanallahu man ay xasaha nee na fitna dafay nelaw yàlla rëbb na ku ko yee te bokkoon ci yee fitna feebar bi am na ci réew mi nga nekk ñu aaye la ne bul génn nga fexe ba génn yóbbu ko ci beneen réew fitna mënta paas lii te fitna bu xasee ba jóg du yem rek ci ki nga xam ne moo ko génnee ndax day law ci àddina bi yëpp moo tax alquran tamit sax wax na ci mu ne wala wattaqu fitnatun laa tusiibanna llaziina zalamu minkum xaassa na ngay ragal fitna ndax fitna bu jógee ka ko génnee du ci moom lay yem day yem day dem ci ñëpp ñoo xam ne yaakaaruñu ko woon mu nga mel ni ak lakk bu amee fi yegg seen safar rek mucc gula ca mën na ñëw ba lakk la ba lakk sa kër kon nag xodde ko ca balaa ngaa lakkale xoodo ko ci balaa nga lakk li muy firi mooy président li ma dégg ma wax léegi li ma ci xam li ci déglu ma déglu ko en tout cas mu wax ànd na ak sunna yonent yàlla moom salaay salaam ndax problème su amee comme moom mooy président réew mi war na yëkkati kàddu ñëpp déggu ko gi tamit tegu ci xam-xam ne ku ko xam ne lii la mooy manifestation yi nga ne dafay ay nit yu bari te coronavirus bi comme dégg nga ni mu tudd sax virus dèjà virus moom mooy loo xam ne bët bët ku mën a gis day ñëw rek comme ça te ñim gën a yëpp nag mooy mbooloo yi ci ñim gën a yëpp mooy mbooloo yi kenn bu fa amee mu tisóoli rek mën na ko wàllu ñu bari su ko amee mu bébbali mel ni kuy nelaw bébbali boobu mën na ko wàllu ñu bari bu saqatee kasalika mën na ko wàllu ay nit bu ñandoo kasalika mën na ko wàllu ay nit kon nag lii war ñaa di wax ko dëgg bala ngaa lakkale kon li ci gën mooy ñu arrêté waale donte nag lépp islaam la islam moo gërëm ndax bu ñu xoolee rek ci isaan islam tey fa mu cosaanoon di ba ji màkka ba li amer dèjà ñoom kaaba ga far kaaba gi nga xam ne moo gën a moom la julli yëpp moom bokk dañ koo tëj ne humra du mën a am ren ngir feebar bi am nii aj màkk aussi kasaalika du mën a am loolu yëpp ñoom tamit ñu ko teg sunna ñu xam ay borom xam-xam lañ ñu ko teg sunna yun tamasal lañ ko teg ñoom kon bu Macky Sall waxee ne nañu arrêté mboole manifestation yi yëpp ci Sénégal dëgg-dëgg loolu tolloon na ak sunu yun tamasal alayhi salaam mu mel daayira yi daan am ak conférence daan am ak gàmmo yi daan am ak daje yi naan daje nañ ko arrêté rek ngir lan arrêté wuñ ko waaye dañ ko arrêté ben temps rek ben las temps la ngir feebar bi nga xam ne ngi solo nit ñi pour yàlla mën cee aar ndaxte nag kenn ku ne nag da nga war a góorgóorlu ci sa bopp nga aar sa bopp aar sa bopp bokk na ci rek booy dem ci mbooloo moo xam ne mbooloo mu bari lañ te lii am ñàkk dem moo gën wala booy dem boobu nga par sa bopp par sa bopp bokk na ci booy dem yow na nga set yow ndax lislaam dafa set na set ndaxte set mooy gën a wàllu is mooy imaan wala boo demee mooy gën a wàllu islam yi tamit dëgg la mooy gën imaan kon set bokkoon ci nga raxas sa loxo di ko raxas ba mu set boo demee ci mbooloo mi tamit boo joxee loxo nit ñaari ñett ñett nit te mën leen bañ jox loxo mën nga yole ko génn ci biti nga raxas waat soo ko mënee soo da nga bañ ci mbooloo sax mooy gën kon maa ngi wax rek ne encore une fois Senegal Sénégal eh, maa ngi wax sénégalais yi nekk ci biir Sénégal ne nañu topp rek ndigal ko ñun rek rek jural yàlla nag subhanahu wa taala lu ko ne mu def tegtalu ne buñ conférence yi baxi gàmmo yi baxi daayira yi bay xadara yi ak yeneen foofu saayira ak làmb yi ak yu mel noonu ak musiciens yi bu ñu leen bàyyee tegtul ne aussi virus bate du am virus mën naa am sans loolu waaye nag yi jël comme dañuy laajante biir ci lislaam dañuy seet li nga xam ne mooy gën a sabab bi ñu aayee loolu waaye nag tegtul la soo bàyyi loolu tamit du ñëw de yëpp mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi tënku rek ci yàlla subhanahu wa taala ak bu yàlla dogalee ne day ñëw day ñëw bu yàlla dogalee ne du ñëw itam du ñëw rek bu yàlla dogalee ne du ñëw sax même bu lépp doon dox yi tamit du ñëw du ñëw rek waaye nag comme nag léegi ñu ay nit lañ dañuy xalaat seet la ne moo gën a jub ñu def lu mel noonu kon daal li gën ci ñun daal mooy ñu arti mbooleem mboolem programme yi war a am ci ci jamono bi ñu toll e, ngir ngir coronavirus bi am jaaxal àddina yëpp la cay preuve mooy boo sonoon tey boo examen tey islaam tey ñen ñu am iman tey duñ bari duñu bari de duñu bari parce que ñëpp tiin na ñëpp daw nañ mu mel ni ki ñu ragal mooy dee wala ñu ragal yàlla waaye dee lañu ragal ñu ngi tëj nañ seen i boutique nañ seen i frontière tëj nañ seen i kër ba kenn mënutul génn ba def mbir yaa ngi wéet ci àll bi wax dëgg yàlla loolu day teg na kon feebar bi lañu ragal waaye yàlla dëgg-dëgg ndax am feebar te feebar bii nag jarul ragal ndax feebar rek comme feebar yi rek am ah. tey nit ñaa ngi dee te feebar boobu te feebar moom ala kulli xaal ak dee bokkuñ dara man ngaa feebar yow bu ñu lay faj sax da nga wér bala nga wér sax di junni ni dee nañ te ñoom feebaruñ feebar bi kon lépp ñu ci loo borom subhanahu wa taala waaye nan nañ xoddi ko ci bala ñoo lakkale maa ngi nuyu ñëpp di leen dokkee di la ziar wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa